suñu waxee tuub nag mooy teqalikook ay bàkkaar aki mooy yàlla yu nit ki doon def mu teqalikook moom te am yéene ne dootu ca dellu mukk loolu la ñuy tuddee tuub ci ay bàkkaar bi maanaam bu dikku ci ay bàkkaar am yéene it lépp loo xam ne lu yàqoon la mu defaraat ko tuub ci la suñ borom subhanahu wa taala aj sunu texe àdduna ak alaxira ba demee ci suratu nuur borom bi tabaraka wa taala mu ngi ñu fay digal ñun ñëpp nañu tuub leen dellu ci yàlla subhanahu wa taala tuub wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuun kon gis nga ki gëm moom la ñuy digal ne ko tuubal ndax sa ngëm léegoo léeg dafay am ay njuumte yu ci rax léegoo léeg bakkan ami bànneex yu cay rax sax ay moy yoo xam ne da cay rax yooyu nag di ci rax nit ki da caa war a góorgóorlu dañ te lu ca bu boobaa loolu mooy wane ne jaam bi am na doole jum rëccee seytaan ak bakkan bu bakkan demee nag ba néew doole lottu lompoñ jaam boobu dootul am kàttan loolu bi maanaa dootul am kàttanul xeex bakkanam ak i xam pour delluwaat ci njubum borom bi tabaraka wa taala te sunug texe foofu la aju sunug texe fii ci àdduna texe nag mooy nit ki lam doon sàkku mu am ko ci anam gu dëppoog ga ko suñ borom gërëmee loolu mooy texe waaye tekkiwul ni rek mooy nit ki am àddunaay kese ñu ne borom texe na déedéet texe dëgg mooy nit ki mën a jaarale dundam fa ko suñ borom subhanahu wa taala gërëmee bokk na nag ci liy dimbale jaam bi ci tuub mooy mu xam bàkkaar yooyu lim koy jural bàkkaar day jur ay lor ci bakkan bi di ko jur ci jaww ji di ko jur ci société bi muy dund di kujur jur sax ba ci malay picci picc yeeg njanaaw yeeg bakar. dañuy loro ci ay bakkar moo bakkar suñ borom subhanahu wa taala taftal ci ay xeeti daan yenn yi da ko rëdd ci sharia ne ku def bakkar sangam nañ ko teg daan sangam yenn yi mu aj ko ci ay dogal ne aw xeet day bu ñu demee ci bàkkaar ba àgg ci niveau sàngam moom moo xam foofa dana wàcce mbugalam ca xeet woowa nam ko cay wàccee nag mën naa doon ay façon yu bari mën naa doon ay feebar yuy wàcc ci jaam yi ay mettit yuy wàcc ci seeni cër mën naa dem sax ba nekk ay catastrophe naturel yoo xam ne E, jaam ñi dañ koy dund te su boobaa dootuñu xàmmee ma bi maanaa suñ borom du segg ka def ka defut moo tax bàkkaar ay dumaam bu ñëwee day matale am na fu ko alquran ju ñu di wax ne moytu leen bokkaale moytu leen fitna ndax la muy jur bu ñëwee du yem ca ña ko def rek o wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa du yem ca ñoom rek moo waral euh, sunu mbootaay gii di goog diina goog lislaam xam gu ñu xam li bàkkaar di jur ñu ñu ñu ñu ci ñaari melo melo wu njëkk wi mooy bokk na ci li ñuy xàmmee fépp fu gis mbaax dañ dañuy soññ ña koy def gën leen caa jàmbaare loo gën leen caa ñeme loo waaye fépp foo xam ne it gis nañu sofaanu mbaax danañu wax ak ña koy def daytaluloo leen ndax seen bopp la ñuy aar seeni mbokk lañuy aar seenum réew lañuy aar suñ borom subhanahu wa taala lim wax rek lay def moo tax képp koo xam ne gis na ah sofaanu mbaax ñu koy def sa diina sant na la nga taxaw kenn ci ñetti taxawaay yi bu fekkee ne am nga doole yoo doole euh, jiit dooley njiit moom la Sénégal di wax nguur bu boobaa yow amuloo sañ-sañu taxaw di seetaan mbon nga muy law déedéet dañ naan la jëlal doole jëla askan wa dénk nga dindee ko mbon nga bu fekkee ne nag yoroo ko waaye xam nga am nga xam-xam ñu ne la boo gisee safaanu mbaax yëkkatil sa làmmiñ nga wax ca ñaawlu ko ah, jéem a xett li ña koy def xett li sa bopp xett li saw askan ndax la muy jur gu ñëwee doo ca mucc gis ngeen foofu ca suratul araf suñ borom subhanahu doon ñu fa nettali ashabu sabt ba ñu nekkee ca yooyu ñu nekkoon dina xante di napp ci bis boo xam dañ leen ko aaye woon borom xam-xam ya dañoo defoon ñaari kuréel kuréel bi jóg addu ca wax ak ñoom xamal leen ne lii ngeen di def kat baaxut beneen kuréel ba ne ah ñii day jaruñ jaruñ topp jaruñ wax waaw yàllaa leen na ma alak gis nga ñooña waxoon ne jaruñ topp yàllaa leen na ma alak ba mbugal ma ñëwee kenn ci ñoom muccut moom lay gàtt wax ci gàttal ne falamma nasu ma dukkiru bi أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس برواية ورث ba ba'is bi riwayati Hafs bi ma kaanu yafsuquun kon ñooñu kenn muccut ca kon waxu boroom xam-xam ci mbir yoo xam ne mu ngi koy gis ci milieu bi muy dund dëkk bi muy dund réew mi muy dund mu wax ca wareef la sowe boppam la sowe aw xeetam la bëgg boppam la bëgg aw askanam la xam naa ne duñ mën a wax lépp ci liñ bind waaye danañ ci jaar jaarin wu gàtt ba gis lim ñuy xañ moom mooy yàlla ak bàkkaar la ca jiitu mooy daf ñuy xañ leeru xam-xam bi maanaa xam-xam leer la goo xam ne suñ borom moo koy def ci xolu jaam bi nit ki mën naa jàng ay bind jàng ay téere yu bari waaye yàlla xañ ko barkeb xam-xam du ca mën a sax jiriñu moom ak boppam moo tax léegoo la nga gis benn waaye ñu joxoñ ko ni moom dey li koy gis ni muy tuux ak nanaka ak def yëf ndaxam ku jang la waaw barke leeru xam-xam la amut motax xam-xam booba jëriñu ko dara lañu reer di def da koy nyom ak ñom di def bokku na ci it ci li wone ne ki leru xam-xam amuko donte jang na téré ya moy dekk ci barab ñu fay def ay ñaawteef mu téye caw làmmiñam du ci wax du ci def du ci jema dindi saa yoo gisee ñu ne kooku borom xam-xam la xamal ne suñ borom xaj na ko barkeb xam-xam moo tax du mën a digle lu baax du mën a tere lu bon ah, boo dee ndaw it di sàkku xam-xam bokk na ci liy waral ak lëndëm ci sam xel ba sàkku xam-xam di la jafe ci ñenn ñi mooy mooy yàlla dana koy waral ci gàttal moo tax imaam Malik rahimahullahu tabaraka taala ba mu talubem bobu di alimamu shafii rahimahullahu tabaraka wa taala mu gis ko setlu ci mandar gay xam-xam gay xel gay ñaw bi mandar gay ko ànd ak suñ borom subhanahu wa taala imam malik daf ne ko yow day gis na ne amna lu yalla def ci sa xol bi muy ak leer góorgóorlul ba bul ko fayee mukk lëndëmuk mooy yàlla gis nga lëndëmuk mooy yàlla fala tutfihu bi zulmati l kon ak mooy yàlla lëndëm la goo xam ne dafay fay làmpub xam-xam bokk na ci li muy waralit mooy wéetaay ci mbaax borom bi maanaa dafay tumuraanke ci mbaax day dem ba daanaka fa ñuy joxe mbaax dootu fa mën a dootu dootu ko xajoo day daw ñu baax ñi di daw géew yi ñuy joxe mbaax muy conférence yeeg jàkka yeeg barab yi dajeeb gaa yi yàlla yi yooyu yëpp day dem ba dootu ko man moom mooy katu yàlla bi ndax mooy yàlla ga muy def moo koy tumurankeloo ci biir mbooloo yu baax yooyu ba dootul sawar ci jege leen te num leen gën a sore gën a nuur ci lëndëm gën a tàbbi ci mooy yàlla subhanahu wa taala loolu day mujj nekk kiiraay diggante mag gaa yu baax yi diggante mag géewi xam-xam yi dootul mën a jëriñoo ci yiw ya nga xam ne moom la ñuy joxe loolu nag mooy may seetaan mu gën ko yilif bokk na it ci li nga xam ne mooy yàlla da koy waral mooy day xañ day xañe wërsëg day xañe wërsëg kom ni topp yàlla di bijjee wërsëg wërsëg nag buñ ko waxee wërsëgu kenn ki la wërsëgu njaboot gi la wërsëgu famille bi la maanaam société bi la moo tax saa yoo gisee nit di mooy yàlla xamal ne ma ngay def sabab buy waral non seulement moom dong mu xañu ci wërsëg waaye ma ngay sabablu luy xañ aw askanam wërsëg comme ni ko alquran waxee ne walaw anna ahlal qura آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض noonu nag topp yàlla di indee wërsëg mooy yàlla noonu lay fattee bunti wërsëg yi suñ digganteeg suñ borom subhanahu wa taala moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ne mastujliba rizqullahi tabaraka wa taala bi misli tarkil maasi bu ñu bëggee jottuliku yootu wërsëg yi suñ borom di joxe amul lenn lu ca gën a gaaw lu toll ni bàyyi mooy yàlla waaye yii rek doyoon na ñëpp àndandoor xeex mooy yàlla loo xam ne dañuy xañ leeru xam-xam barkeeb xam-xam loo xam ne day waral waa ji dootul mën a baax dootul mën a jege ñi baax loo xam ne day waral ak ñàkk cib société suñ borom dootul wàccee am ndoxam comme nii nu koy gisee fan yii jamono bii ñu toll ñun ñëpp a ngi soxlam ndox waaye boo xoolee it nag li nuy dund ak la ca suñ borom waxoon du la bett fi ne amul kilifa amul taalube toolub xalifa général bi ak toolub taalube bi yëpp aajowoo ndox moo tax nax yi nuy nax kilifa yi ñëw naan leen yéen a yor mbir yi taal bu ngeen tàllalee seen loxo rek mbir yu sotti ñooñu di leen wax loolu ñu leen di dugal ci guta la yoruñ dara ci mbir yi laysa laka min al amri shay'un ndéem bi sallallahu alayhi wa sallam la suñ borom jàkkaar lool ne ko yoroo dara ci samay mbir astumala kon yow kilifa ak diina gi moo tax genn kilifa diina gu baax waxoon na ne ad durru wa nafu min arrahmani laysa min al bidaani wa sudaani lor ak kenn yoru ko du ko weex du ko ñuul dem na ba sax naan ad durru wa nafu من الجباري ليس من الفجار والاشرار بو ويخود نيول بو باخود ام صفا نوم باخ مون نا كو ويخ يوروكو كو نيول يوروكو كو باخ كا موي ياو كليفا دينك يوروكو كو ساغان كا يت نك يوروكو موي فاجر با فان يي وني نكو ñepp ngi soxla ndoxum borom bi tabaarak wa ta'ala bokku na nak ci li galankor ndox ñaar yeuf ca juróom yam tuddoon benn ba dafa waxoon ne walam yanqusul mikyaala wal miizaana ilabtulu bissinina wa siddati almuunati wa jawri sultaan gis nga siniin mooy firi bekkoor yentu salaay salaam dafa waxoon ne suñ demee ba marché yi jaaratud yoon natt yi jaaratut yoon peese yi jaaratut yoon dañ leen nattoo bekkoor ak buur yu dëng senegal ak Afrique ci yem ñun ñëpp tey ñu ngi dox di ñaxtu suñuy nguur te naan ni ñuy jëflanteeg ñun àndul ak yërmande dañuy jël suñuy alal nangam ak i nangam sabab ba ci ñun la ñaareel bi ci fi ko waxee ca addis ba daf ne آه، ولم يمنعوا زكاة أموالهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا من يقول عندما يبقين يتوني أسكاي على لي يالا تيم دخم موتاخ بومبير مي امي دانيو ورا توب ديلو سي بروم بي تبارك وتعالى بكار لي مي ورال دافا بري بكار داي داي دانيو خاني ورسك خاني نيو ويرغي يارام غيسنا ponk bam mu njëkk a wér gi yaram la ci wax motax docteur yi nga xamne ci walu wér gi yaram lañuy yëngutu bay nañ bàyyi xel pak bu njëkk bobu bu baax lam njëkk a moy lam tazaril lfahisatu fi qawmin hatta yulinu biha illa fasha fihi attaaun wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina mu mune sa yuñ deme ba faaxisatu muy nak moy bépp xetu ñaawteef waaye gis nga baatu faayisatu lañ jëfandikoo woon ca homosexuel ya buñ demee ba ñeme koo manifester comme ni mu amee ren ci Sénégal ñu ñeme koo manifester di di di ko yëngal muy di ci wo ay mbooloo di ko promouvoir nee na su boobaa danaa leen nattoo ay méttit boobaa yéen docteur yi da ngeen gën danaa leen nattoo ay feebar yoo xam ne ak i peste ay mbas yoo xam ne seen maam ya xamuñ ko woon loolu doy bu ko defee nag kon prétexte bu ndaw boobu ñuy faral di wax naan homosexuel bi dañ ko war a aar protéger ko mooy kon moom nangu nañ ak nekkam ci loola mu nekk ba sax far ne nañ ko wutal lu koy aar lu koy protéger te yëguñ ne kooka la muy def lam ñuy bijjil ñun société bi ñun ay musiba la ay feebar la ma ndax euh, xel la xel nangu na ko aar as mbooloo su tuuti suy mooy yàlla ba yóbbee mbooloo mu mag ma yépp nag aw aw musiba hadis bi de loolu la wax bu ko defee kon euh, mooy yàlla yi muy xañ doomu aadama di ko xañ societé bi bëri na bokk na ci it mooy mooy yàlla bu bu bu demee ba nit ki miin ko da koy xañ mën a topp yàlla subhanahu wa taala euh, Suleymaan ad-Daaraani rahimahullahu tabaraka wa taala daan na wax ne laa tafuutu ahadan e salaatal aljamaati illa bi danbin nee na amul kenn koo xam ne dem na ba mënatul a julli ci jàkka ya lu dul ne bàkkaar a waral kon gis nga julli ci jàkka sax boo baree bàkkaar dootoo ko man mën nga sës ci jàkka ja mu jege la lool waaye doo doo fa mën a teg sa tànk bëri na liñ ci waroon a wax waaye li ci liñ ci bëgg tënk rek pour gàttal ko moy aw xeet bu ñu ci setan ak moy yalla muy law day waral rebbum suñ borom rebbum suñ borom day waral sax ndeke Malay, malay ak seen bop dañuy rebb daba yek njanaaw yek yep ñuy rebb ngir lan dañuy xamne ne bekkoor bii kat tangor yi kat ñu ci dé ñom loru ak doomu yi ko yobbe bu ko defee kon mbokk yi nanu tuub dellu ci suñ borom subhanahu wa taala léegi rek dafa am ay mbokk yu fi ñëw bàyyi fii ci cité millionnaire ànd ak benn imam muy imam Wilane di wane ne dem nañu gisi préfet ci genn kër goo xam ne dañ koo ubbi foofu boobaak léegi dem na ci juróom benn weer ñañ fay fa ña fay faj ak ñañ fay faj ñu ne góor jigéen ñi lañ ko réservel te lépp nag mbokk yi ci suñ tur la nee na it biñ demee gis préfet wax ak moom <coughs> préfet ñëw na wax ak ñoom xool barab ba ba leen nag fii norme yi waroon a daje pour ngeen mën fee ubbi hôpital dajewut waaye bu ngeen liggéeyatee ci seen hôpital bi ba 18 heures na ngeen tëj heure boobu bu mu leen fi paaseeti ma ne waaye tolérance boobu préfet am ak ñoom yellantoon mu am kook imam yi tolérance mën ngeen fee nekk ba 18 heures préfet xaw ma ku la fi teewal am na ñu la fi teewal ma ne tolérance boobu nga am ci LGBT yi yellante woon nga am ko ci imam yi bëggoon a organiser jotaay boo xam ne sensibilisation rek lañ ca jublu woon musal xeet wi rek lañ ca jublu woon nga ne leen du fi amee ñee ñoom amal nañ ko ba ñen ci seenu kër d'accord nga ne norme ya matut waaye bàyyi leen fa daal ñuy def seen seen yëf di liggéey seenub liggéey ba 18 heures ngeen dem bu ëllëg yaa ngeen xiyaat ñëwaat waaye yellante woon euh, préfet nga am tolérance boobu ci ñun waaw respect bi nga am ci ñoom yellante woon nga am ko ci ñun loolu nag dañ koy wax ca kaw mbooloo mi ñoom ñu ngi tuddee seen bopp pareco pareco mooy programme régional sur la réduction des risques muy li ñuy tuddee VIHAS tuberculose ak autre comorbidité ci ñi nga xam ñoy jang jàng ak yeen risque yi buñ ko waxé nak moy góor jigéen ñi dañu dugg ci biir ci gàttal sénégal ñu ngi ci face bu doy war semaine bi dafa am benn docteur vétérinaire bu ñu ñëwul fii ci jàkk ji yaakaar naa barki démb la su ma naxut barki démb la julleeg ñun jox ñu beneen docteur vétérinaire bu sant ja mu wax ak ñun lu yàgg ne ñoom dañ leen a dàq ci seen barabu liggéeyukaay société bi leen dàq mooy société pharmaceutique bi ñu tuddee Gigon. Gigon boobu tubaaba ko yilif ñëw ci suñu Sénégal gi di tere jullit ñi julli la ko commencé trois heures ba ba ñuy wàccee gannaaw timis kon ñoom fa la leen tàkkusaan di fekk ak timis amul naxante nag ak woyof buñ deful seen diggante digganteeg directeur ba waaye ba tey jii dañ leen a far sax dàq ngir lan c'est parce que dañ fay julli yellante woon ñu yem foofu waaye ñu tegaat ca ne ci semaine bii rek am na beneen institut européen des affaires benn école privée la fii ci Sénégal moom itam ñëw na gën a dëgëral gigon ci ne heure yi julli mayatul kenn muy julli ci école boobu waaw mbaa duñ dem ba suñu école publique yi sax ñu ñu ñu ñu laaf ko ca dama ne Sénégal nag li nuy li nuy tooñ yàlla mu ngi bëgg ëpp nañ yëg ne jullit ñi dañoo am contrat yuy signé seen borom te mooy fas yéene am fidélité seen diggante seen borom respecté seen diggante ak seen borom liñ siqoo nag moom ci jaamu yàlla gi tax ñu sàkk leen waaye looloo tax ñu sàkkuñu quatre vingt pour cent ci sénégalais yi ku ci gëmul lislaam ma nga gëm christianisme kon nu aw nit di bàyyikoo ca biti ñëw imposer ñu ay règles yoo xam ne dañ naan heure bi ak heure bi dootu leen julli ko defee kon suñu législateurs yi ñu ngi sàkku ci ñoom nu mu gën a gaawee waay waay nañu décréter nañu légiférer ay loi yoo xam ne dana wax ak ñoo ñii dox seen digganteeg jëf yooyu ndax aw lor dong la ñuy jural ñun sénégalais yépp waaye nañ ñu ngi koy sakku ci xalif généro yi yépp nañ sàkku ci seeni njaboot ñu booy boycotté <coughs> école yooyu boycotté pharmacie yooyu kenn ku nekk bu digaloonu taalibeem ne ko bu fa jëndee jëndeeti ordonnance euh, léegi tey ñu perte ñoom ñëpp te yeneeni pharmacie ngi fi yoo xam ne dafuñ loolu yan na yàlla gën a aar réew mi yal na yàlla may ndoxum jàmm yal na yàlla may nawetu barke yal ñu yàlla may njiit yoo xam ne dañuy encouragé mbaax di découragé mbon hasa wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين